dafa am loo xam ne bu ko nit defee ba duñ jàmbaar jërëjëf jigéen ñi waaye ko deful dara du ko dégg ñun ay géew la nu ne danoo bëgg Ousmane Sonko dara taxul lu bëgg lu yàlla tax ak intérêt réew jëm yenn ceerno na dinaa ko tudd bëggul sax ko tudd waaye dafa ko brancard yi jox ko ko def ci farcib ba ko ko